état yëpp bu nekk nekk na fi ba ñuy door soppi tuuru daaru musti lañ daan wax daaru musti daaru musti kenn xamul lu mu doon waaye daarul ci kër aji maye ji conseil des ministres bi bii weesu lañ koy door a maintenir ndi ne wax nañu wax daarul musti borom mi mbir nga borom mi may nga ñaan nañ la ci kër dëkkub aji maye ji Serigne Touba na Rasoul dafa wax ne mbokk li muy neex neex am na lu ko dàq ñu ne ko lu ko dàq mu ne déggoo mu ne cere xetax cox tax ñooy mbokkum cere waaye ñàkk a déggoo tax na bala ngaa mën a jariñoo cere génne bokkam yooyu sànni ci àll ba ndawal ndawal sa burit ak der waaye bala nga koo mën a jariñoo génne bokkam yooyu sànni ci àll ba diw diw xottu areen ngooñ ràkkal bala ngaa mën a jariñoo diw génne bokkam yooyu mu déggoolu sànni ci àll sëñ Tuubaa nee na boo leen boolee ñoom ñett ndawal diw cere bu fekkee seenum ànd da ngay defe ne ñii mësuñoo tàqalikoo ci bokk te lu ànd ba neex neex bokk yiñ bàyyi ginnaaw ngir ñàkk déggoo bu kenn wàllisee rekk ànd bi yàqu kon mbokk li muy neex neex déggoo moo ko dàq daana wax sax ne mbokk su ca déggoo amut mbokk amu fa kon li nu yàlla boole dafa bari mu mu ñëw nag yónnee ci bis boo xam ne du bisu Ceerno nekkul bisu Ceerno nekkul it bisu Daaru yoonu murit yi la ndax Sëriñ Tubaa Xaadimu sol dafa wax ne man day Ceerno Ibra Faati Sëriñ Tubaa nee na ma su fekkee ab dëkk laa ab dëkk la moom sëñ Touba nee na Ceerno mooy yoon mu ne su fekkee nit la na mooy loxo ndeyjooram mu ne su fekkee am néeg la Ceerno mooy buntam su fekkee ndab la Ceerno moo koy dënale <laughs> kon na mooy lépp yoon te dafa waxoon am na bis bu ma am boo xam ne sëñ Touba ma ko jox muy tey mu ne ku jullit ak ku yaakaar sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak foo mën a nekk ak fa nga nekk lu mu la bari la la fa nekk lum doy doy doy doy doy doy sëb cër man sëriñ tubaa jox na ma ko ma yoral la ko murit yëpp nag ak jullit yëpp waaye dafa toog ba mu yàgg mu fudditu ne ah waaye yo am na am na gémmiñ de yoon wi de am na gémmiñ ñu ne ko luy gémmiñ gi mu ne am na ñu ko dul jël si te duma ko yet kenn am na ñu ko dul jël si te duma ko yet kenn te maa ngi ñaan moom ak mboolem kuy ab jullit te teew fi wala mu am xolub teew fi wala yéene tuyaaba jun fi am ak lun fi yaakaar yàlla na ko bokk ak ñëpp Ahmadou Kara Sylla la jaamu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul